البعد علينا ليعاد وتبايفا البعد علينا ليعاد وتبايفا Kaisar sur sa bi topp bi lainan bi balang fato faatoo dul wàlle Karbala ay Karbala jug Joy jooy ba xëy xaajoo jitu Sara yee ya Sara Sara yónent Sara ye? Sara yee ينن وسب سيدنا محمد سرا لا لا لا لا ينن بايو فاطمة ينن بايو فاطمة لا لا لا لا yonen baayu roqeeq yonen baayu roqeeq lay lay lalaaw lay lay lalaaw yonen baayu umu kalsom yonen baayu ah ko sopp sayyiduna muhammad ah yonen lay lay la lay lay lalaaw lay lay lalaaw lay lay la lay lay la إلا الله البعد علينا رياد وجبايفا طلع البعد علينا خير الأنبياء سنيون بي خير الإسلام بخير نيبي Karbala ay Karbala Stumeti bamel Karbala Tala dul alaina Sariyatil wada Karbala wo Karbala Karbala wo Karbala Karbala iya, bakar yonent toñe jàll karbala karbala wo karbala wo karbala yonent suynu naanul maymuna naanul baas rekk naan foofe karbala karbala bàmmeel Karbala rey nan waa kër yóneen te tooñ leen rey nan waa kër yóneen te tooñ leen rey nan Karbala la veru tam xarit la woon balaa bu leen saboté baax ku tá, fi né? yeneen ko sopp Seydina Muhammad sara laay laay lalaaw yeneen baayu Fatima laay laay lalaaw yeneen baayu Roqeya laay laay lalaaw. laay Marlena. Thank you. yàlla mooy euh, jëkkër la ci maam say ndax euh, xaritu jëkkër jëkkër la euh, jëkkër ji moo kii moo leen fi teewal la sang bi gannaaw ba mu la nuyoo pare nga teewal fi ki nga xamante ni moo di Cheikh di jëkkër ci maam say donc lan nga ñu mën a wax tey. waa kontaan rek ndax lii dara gën koo rëy daal nga xewle say xarit ñëw say mbokk ñëw ñëpp jàppale la kon loolu yaakaar naa fierté la te ñun aussi. xamnañ cheikhou bu baax a baax parce que ñoo bokk fenn fenn daan jànge alxuraan ba màggandoo ba defandoo lépp kon dañ koy ndokkale bu baax a baax a baax di ko ñaanal sëy bi barkeel ñu am si ay njaboot yu barkeel daal kontaan nañ trop wax dëgg yàlla di gis maam say jaajëf mu ngi noonu kontaan nañ bu baax a baax di jëkkër ci ki nga xamante ni si moo di maam say gis nga ñii nii ngay gis nii ñoom la jox rakk yi nga xam ne dañ ko bëgg lool te fonk may nañ leen kun bëgg li mu bëgg ngeen xam ko mooy. fekk ab yambar nu may leen ko. fekk nu ku ñaaw ba takk may leen ko. fekk nu itam wut nu may leen ko. ki nu leen may. say mbay xaar ma yem foofu balaa ko jot a dugg. waaye xam leen ne daal ñii ñoo jóge ba Touba. di ay jëkkëri maam say njaay. maam say nag may du ko ay paa ndax ñi ba leen gisee xam ne mbay màggatunu. xool ma fi yow léegi li ma bëgg dugal kuy ñëw soxna jaara la dugal noor ana soxna jaara na tempoon nag te ma xool. maam jaara 我如会说。 silmi cimbul lépp moom la barke rasulullah hmm. dara lu ñaaw. maam say newul ci koñ bi rek. mbedd mu ne mu taxaw fa. naan dama laaj zëte mag lii déedéet. newul ci noonu. maam say newu fi di demee soirée. dama ni maam say Ndiaye nag lu baax rek la ko xamal. moo tax loolu la ñuy wax ci moom. fii la toog ci pooju ndeyam bii ba li ko fi fekk fekk ko fi barke Serigne Touba Mbaye kon nag rakk sama soo ñëwee war ngaa ñëw hmm? soo ñëwul war ngaa ñëw. d'accord kon nag maam say ñëwal ñëwal Mustafa du tooñ kenn ku ko tooñ mu baal la ay Mustafa yonen jëw ñu Xaadim Rasulillahi ku sopp Serigne Touba ku sopp Serigne Touba ku sopp Serigne Touba borom di jaar borom tay bak borom na too ku sopp Serigne Salim Mbacké defal lii ñu màggal ku canta ku defal lii ñu màggal Baye Sall Mbacké Mbacké Baye Sall Mbacké Baye Sall Mbacké Baye Sall Mbacké Baye Sall Mbacké ana ñi bëgg Baye Sall defal lii ñu màggal Serigne Salim ana Pape Touré sëriñ Mama Samba Ndiaye ay booram di nga Ndiaye Mama Samba Ndiaye borom jël bee ma maa ngi ñëw maa ngi ñëw. maa ngi sopp Mama Samba ture kii moom mbay Fall la tabarkaala indi euh, tissu boo xamante ni xamoo sax nu mu tudd maam say ni nga def nu mu tudd. waaw ah, bi mooy Facebook ya waaw ah, bi mooy Facebook nga may ko waa Facebook bi nga xamante sa ami Facebook yeeg ñëpp ci xew mi. waa Elvision daa ko may. waaw ah, tamit dëgg noonu. <laughs> tey daal nii nga def pour deuxième fois. waa gis nga de. kon dañuy xaaraat wala fii lay yem. waaw xaaraat leen yamagul dañuy xaaraat ak yéen rek. non mais yow yaa ko accompagné du mbay euh, lan nga mën a wax ci bis bi yow it. waaw Bamba maa ngi lay siyaar ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur xam ni bis bi di leen ci mënoon def waruñu ko woon coof faaw ñu teego suñu fukki loxo ak juróom parce que euh, soxna si euh, am xew bi. maam say sunu xarit la sunu rakk la sunu lépp la moo tax bu xewlee rek dañ ci def so dañ ci dem ak xool waaw dañ ci jox lépp lu ñu am dañ ko ci yéene jox ko xam nga rek moom mu doon ku baax daal xale bu déggal ay magam macha allah acca mu ngi noonu maam say kon xam naa duñ leen teelu yàgg comme gaa yaa ngi lay xaar ci biir da ngay la pour troisième fois waaw kon di ngi dem maa ngi ñëw a ma gën acca rendez bi ci kanam mu ngi noonu maam say Ndiaye borom xew bi rendez-vous bi léegi léegi ñu ngi koy xaar ni palman facebook ah waay man see facebook waay maa wax loolu man see ñëw naan ku gis ne nen nen a ngi te wolof Njaay nee na ku wal mburu ku ne tuddub dëkk tabarkaala tey mu ñëw toogaat sama wet def benn euh, zone am dugal rose ci wet gi doore di feeñ ci wet gi waaw maam say lii lan la. waaw lii nag yaa ma gën a xam mooy caw sa xiir. xam nga lu ma bëgg a xam xew bi lan la daa am ku la ci tooñ wala dafa am euh, comprendre lu ma daal. kenn tooñu ma ci bëgg waa Elvision Média rek. barki Serigne Bamba lii bu duggee ci biir Elvision Média Elvision dina wàcc ba zéro xam nga ñan laa yërëm ñi nar a toppaat sa ginnaaw bëgg waa kay baay waaye amul benn problème ak maam sey rek. mais fii lay yem yaakaar na non yamul fii des na beneen mais. fii lay wax nii fii laa koy yemale ndax. gars yemale ko fii parce que gars yi bi moom fi mu doon miir na. waaw des na beneen mais bàyyi ma yemale ko fii. mais lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo ñëw ci xew bi ak ñi nga xamante ni tabaarkalla ñoom ñooy sey mbook ak say am di jàmm ak waa El Vision aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo recouvrir sa événement donc lan ngay leen di

aussi maa ngi remercier samay amis samay am di jàmm samay dëkkandoo kontaan naa daal si ñëpp. léegi dañuy joxante waat rendez-vous beneen bés yaakaar naa. waaw ba muy moom. ah dëgg tollul noonu. acca <laughs> mu ngi noonu maam Sey Ndiaye tabarkaal. la la yonen baayu roqeex lay lay la لا إله إلا الله لا إله إلا الله الألباد علينا رياد وجبايف الألباد علينا خير الأنبياء سنيون بي خير الإسلام بخير نيبي Karbala ay Karbala Stumeti bamel Karbala Tala albadul alaina Sariyatil wada Karbala woy Karbala Karbala woy Karbala Karbala iya, bakkar yonente doññeeñ jàll karbala karbala wo karbala wo karbala yonen suynu naanul maymuna naanul hmm. baas rekk naan foofe ca karbala bàmmeel yi Karbala rey nan waa kër yóneen te tooñ leen rey nan waa kër yóneen te tooñ leen rey nan waa kër yóneen Karbala Karbala weeru tam xarit yeah. woon Karbala yéen Karbala Dita Sara yéen Dita Sara Dita Sara yéen Dita Sara Dita Sara yéen ah ku sopp Seydina Muhammad ah yes micro hmm? waaw euh, tey nag ñoo war a waxtaan ak ñi nga xamante ni mooy sunuy bàjjan di sunuy yaay ah ci li nga xamante ni tabaarkàlla mooy euh, xew bi bàjjen ginnaaw bi ma la nuyoo ba noppi loo ñu mën a wax tey ci bisu tay bi ah bàjjen day temps bu góor xanaa bisu tay bi moom yalla na ci yàlla defal nu dugg ak bisimilahi rahmaani rahim rek genn ci alhamdulilahi rabbil alamin tan fekke ko tatal ko ak bepp julit yalla musal nu ci setané ak bala ak lepp luy lora rek borom xew wi nak mom may badjanam may ndayam may leppam muy mam sayna bu ndiar borom keur bi may ndayam may badjanam may mamam may lepp yalla leen yalla jubale deppale seeni wërsëg defaleen njabot gu barkel te murlo ko ci jàmm ak salam te yàlla la fa leen cat musa ci lépp luy lore ak bépp jullit man nag wax dëgg yàlla wax jom daanaka du bari naa man maa jaboote ñëpp a ah, yàlla leen yàlla suturaal daal rek laay ñaan defe leen mucc ak mucc la fan bu guddoo ànd ak sutura rek yàlla na yaayam ji dugg ci bisam bi ak bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin ni mu mel fii daal yàlla na ko mel fan jëm ak sàmm ak salaam mu dugg ak bisimilahi rahmaani rahim génn ak alhamdulilahi rabbil fekke lépp ak njaboot b barkeel a wax ci maam say ah maam say li ma ci mën a wax bari na maam say mom, ma lew won ñu tek ci ndis gi tudd di ko leewu yaat parce que yene joxat sama dom yar la xam ci mom, ak teggin ak bëgg ñepp nak maam say mom ñepp la bëgg amul goor amul jigen amul pul amul nar maam say da masal mo waral bisam bi melni ku bëgg ñepp rek ñepp la lay bëgg yalla na yalla yàlla musal ci setan ak cat ak lépp lu yor dal te yalla defal ko mu murlo bisam bi ak jam ak salam defal ko dal barke man dal loolu la ko ñaaral waaw salam seigne khadim yaay booy euh, ginnaaw bi ma la nuyoo yow it euh, noo gisee bisu tey bi. bisu tey bi neex rek ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonant bi di sant suñu ñaari waajur man damay sant Marème Ndiaye mii ndax dama gisal boppam bëggal ma boppam jàppal ma boppam jàppale ma nag bu baax nag ci biir nag ak ci biti may waaxu di ñëw ci kër gi guddi ak bëccëg suba ngoon Baye Ndiaye mi nga xam ne ginnaaw yàlla mooy sunu lépp nekk ci biir kër gi. su ma jàqee sax wala ma jaaxle dama naa mare ma wool ma Baye Ndiaye su ma woolee Baye Ndiaye mun ma soxna si man kaa mun ma bay bul nga dalal sa xel te xam ni jàmm rek ca kaw ca kanam ci lu baax may sant Baye Ndiaye nag di sant ma Ndiaye di sant Soda mii di sant na gone yi ci kër gi ndax tàqale wuñu maa seen yaay guddeeg bëccëg subaa ngoon maa ngi waaxu di fi ñëw te musuñu maa woon bët boo nga xam ni sunu yaay mii ngay àndal neexunu musuñu nu ko wan saa yu ma ñu ngi foog man ñu ngi rek man mel ni sam def ma comme seeni moroom ma di leen sant nag te di leen gërëm tey ñaanal nag maam sëy sëyam bii yal na ko yàlla boole ci sëy ya gën a barkeel yal na ko fa yàlla jox njaboot gu am barke ci barke Sëriñ Fàllu mi nga xam ne moom laa yaakaar di ñaan nag ci borom njenne mi nga xam ne mooy sama wasila ma di ko ñaanal ca kaw ca kanam yal na nu dund ba nii nu làngi nii tey di ko céetal yal na nu dund ba di ko fa ngént ji ngéntel taaw ak magam nag muy Ndiaye di rakam yalla nañ dund ba langal leen ñom ñëpp man nak mom dama leen di ñaanal rek mbien jaay mi nga xamni moy taw mbien dama teyel bopam mbien lo wax mu ni soda lo wax mu ni soda ba ci elas jaay mi man nak dama leen di ñaanal rek ci kaw ci kanam di ñaanal nak bis bi yalla nañ dund ba di fi teru seen yaay yoonu màkk wasalaam ngi noonu ah, yaay boy nga <laughs> deg li ñuy wax yow it lo ñu mëna wax ci bis bi ginaaw buñ la nuyo ba nopp sant yalla rek sant sante sëñ touba ak cheikh yi sant sama ñaari waju sant borom kër gi di seen baye ndax buma ma yor bu bon duma fi mën jur doom ba doom ji di fi indi mbolo mi mbolo mi nak amna na yàllaa ko booleeg mom ndax xam ngeen bis bi ma musta am ci kër gi koñ bi sax mën naa ne bari wu fi waaye boo juree doom nak doom ju ne ding ko jur do xam ki nga jur kan la waye yalla na ko jik yalla na jik yalla na jik ci barke maam bu Ndiaye man ko tudde te yalla def ko mu mel mam maam bu Ndiaye nak doon kat doon muñkat te di ko ñaanal nak sëyam bi yalla na ci barke yalla na ci am luy atté te njare wàqi yal na ko ci yalla may luy atte njare te liko ci yalla di maye moy mu muñ ko fa mu ñun nak do fa mëna yag yal na ko fa yalla jox xolum muñ mu diko fa muñ xawma ci mom nak ak mbon xawma ci mom ak tay tay li ma xam ci mom dal moy bëgg na nit yalla ko joxe nit mom mënuma ci lén moom ku ko bëgg bëgg ko ci nit ku ko bañ bañ ko ci nit lool la ko yàlla cërale ku nekk nak ak la yàlla cërale mom nga yam lii ko rek yal na ko ci yalla fal cat ta defal ko ci barké ta musal ko ci saytane boole kook boroom këram njaboot gu barkeel borom néeg bii nu nekk nag muy sama taaw bii ñëwu ma benn taaw ku sa taaw yóbbu màkk ñëwu ma ko ku sa taaw tabaxali étage ñëwu ma ko su amee étage dina ma ko defal su dem màkk jotee dina ma ko defal seral na sama xol yàlla na yàlla seral xolam yàlla na ko yàlla may ci néegam bii ni ma terale ci kër gi yàlla may ko lu ko teral lu kawe njortam lu ko bett lu kawe njortam yàlla na ko yàlla may muy Alaaji Njaay mii di ko ñaanal Adama Njaay ak Ami Ndiaye ak mam Boy mbay ak ñom ñep bis bu melni bisub jam Faat jom mi di sama gorob mu tok ci néegam bi du doy du waxi du nettali ji xamul kër ken buñ ko joxe juroom mu togg buñ ko joxe fukk mu togg ken xamalu ma dara suma yarab yoreb ken xamuko suma ko su ken xamuko nituk sutura la yalla nako yalla sutura yalla nako yalla sutura yàlla suturaal seen bàjjen mii tamit su fekkon tane won dafa jël mbeen njaay def ko jam tay bu dikkaatee sama ne bëgg ci du ko te mooy magi goram mam say ni kon su deme ba koka di nak nan ko def joo gis nan ko waxtane moy rakam su deme ba rakam di jël ci maam say mi ci mom mi la su ko newon ma jël ci maam say mu ne ko bu ko jëli dañuy dox dañu mëna dox te ñu ni dañuy jaak am nga ne elaw mom dox la man li fi dajee ni man xawma ma leen xaw ma seeni ñi ma fi ta ci fi ñu mo xamu bari na ta mam say tax ñu ñew fi kon su xolon beut bobu di len xolé beut bu ñaaw ay jagalañ wala dañuy taxawalu kon du jël rakam di jël domam di fi indi sant ko di ñaanal fan wu gudd mu dund ba njabotam teral ko ci kaw suuf nun ñepp di fekk ndax lu baax rek lay dox mom dang kay mere sax ci joxeel mom day joxe ba di la joxeloo lo yëf bus bu ne dañuy xulu bus bu ne dana la joxeel joxeel ba dang koy jep kon nak yal na len yalla lafal bay ma gan mais ma ng koy ñaanal te di xamal ne ko ma ng koy nak bur we bi musu fi am waye li ma ñëk wax rek jabot mom day jaboote ko ni góor ñi ci koñ bi amu ci kuma baye kenn ku ne taxaw na sa buntu wér ne la sama dom day bëgg def xew xew wi nak xoma fu mu yam kon nak nan ko jéggul ba ci sa ba yow mi mu ne ma kenn du fi def lu du fu ñuy xasa yi sikkar baye bo ñu def ko ba suba amut goor gu tax kuma taxawut ci buntu këram dem ba ca jumaa ja yegal leen ko nak bañ rek ñu ne ciow li bari na fi te seen yaay yegaluma ko man bama juddo ba tay luma def lu nekkul ndigal dama koy jéggul waaye ma sañoon limay def rek ndigal laa koy def koñ bii nag seen fay li ko tàmbale ci sa yaay yow mi sa tante awa fay émissey ko buma limé djum juum kër Daawuda Faal kër Asan Baasal kër Magan Mbay du ma leen ndax ñom no bok kenn kër la genn kër des ko dag ñaar kër mawda Jang amut genn kër guma guma gu ma ndax da ngay jum gërëm na ñepp sant ñepp ñu joggé Touba ñu jógee Louga samay bok samay dekk gërëm na ñepp yalla nañu yalla may ñu dundaat ba diko xewal xewu jam yalla nañu yalla may ñu dundaat ba diko xewal xewu jam yow mi cër bi nga jox me ñay gis naa ko yal na la yàlla may jabar ji gën ci yow soxna soxna si gën ci yow nga am ca mbeen jaay am ca keneen ak keneen ak keneen koo bëgg ci barke Sëriñ Bamba ci barke maam Cheikh Rama Fall borom kër gii nag هلا البعد علينا ليات وتبايفا واوا هلا البعد علينا ليات وتبايفا ได้สาสุขสยินบีจบบุลิงบีในนั้นบีบาลังหักฟาโตตุลวาเลบีวาวา Bala ay Karbala jug joy, jooy ba xëy xaajoo jitu Saaraa yee ya Saaraa yeneen Saaraa yeneen Saaraa yee Saaraa yee سارة ينن قصب سيدنا محمد سارة لا إله إلا الله ينن بايو فاطمة ينن بايو فاطمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله ينن بايو رقيق ينن بايو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 علينا إياد وجبايفا طلع البعد علينا خير الأنبياء سنيون بي خير الإسلام بخير مين بي Karbala ay Karbala Stumeti bamel Karbala Tala dul alaina Sariyatil wada Karbala wo Karbala Karbala wo Karbala Karbala iya, bakar yonent doñe jall karbala karbala wo karbala wo karbala yonent suynu naanul maymuna naanul hmm, baas rek naan foofe ca karbala